waaw man de dama am benn jaaxle gu ma jaaxle ci nit ñi ak seeni comportement Ablaye Wade musul perte élection Touba chaque élection bu jotee dañ koy votel nombre boo xam ne wax dëgg yàlla méngoo na ak la mu bëggee woon Touba waaw at bu jot nag Ablaye Wade assemblée nationale votel ko budget boo xam ne. mboolem ministère yépp bu ci nekk lañ la war a jox ci milliard pour nga liggéey Sénégal def na ko mais Abdoulaye Wade moo fi organisé festival mondial des stars nègres def ci cinquante deux milliards cinquante deux milliards yooyu est ce que xajul woon ci assainissement bu Touba bi waaw waaw wala déet Abdoulaye Wade moo tabax monument de la renaissance ñaata milliards ci def. est-ce que defaloon ko ci inondation Touba bi gënul di farata ginnaaw saa bu demee Touba wote ñu gañ mu mu gañe waa Touba jox ko jox seen carte te Ablaye Wade musuma gis projet buy jar dix milliards bu Ablaye Wade masa def Touba bu nit ñi teg seen bët ku ko xam na ma ne béréb sàngam la ma dem seeti ko xaj na boog bu munta ñàkk mooy centrale électrique bi nekk booy dugg Mbàkke te boobu Mbàkke Bawol Mbàkke Touba yëpp ko bokk centrale boobu est-ce que mat na di milliards yàlla rekk xam kon buñ taxaw ne quarante milliards def Touba boo jógee Gédé ba ba ngay àgg jumaa ji fépp dañ koo gasoon ay kamb rof ay tiwo bétonné ko muy wal mboolem fu marché daaru xuddoos jaar fu nekk fu nekk ay tiwo jaar nañ fa di yóbbu ndox mi daaru raxmaan bassin de rétention maanaam li Macky Sall def Touba ci wàllu inondation bu ko Abdoulaye Wade defoon ndax li am dina am boo ko Abdou Diouf defoon ndax lii am dina am te ñoom ñëpp dañ leen daan wesel ay budget Abdou juuf la mu bëggoon def def na ko inondation Touba bàyyiwuloon ci xel Abdoulaye Wade li mu bëggoon def muy festival mondial des arts nègres muy muy grand théâtre muy également euh, fële naka la euh, monument de la Renaissance def na ko mi ana xaalis boobu tey seeni est-ce que defoon ko ci inondation Touba gënoon doon farata